gan bu ñew dañ dalalah dalal jam mais fi nga dal tay si teungej dama ne say mbokk say xarit ñonal dalal jam di rafetlu cadeau yi fi monsieur le maire yëkëti maire de la commune ouest il est à son troisième mandat daral bi min nañ ko ndaxte il est à la disposition des citoyens di rafetlu aussi téwayu préfet yaakar na ne préfet day tay suñ ko waron affecté sax wa teungej nañ ko Té ñi daral bi lay doon dama c'est un préfet qui est disponible dans tous les secteurs d'activité Foko ko oo rek présent du sport du daralbi, bi du santé il est partout merci monsieur le préfet di nuyu aussi euh, le chef de service de l'élevage mais di nuyu suñuy mbokk suñuy xarit suñuy mag teg nuyo bi yëpp ci président Youssoupha Deme ndax daral bi tamit wax nañ ko sànq Adama wax ñoo màggandoo ñoo yarundoo ñun fii rek lañ xam daral bi existé na peut-être même avant notre naissance yàgg na dañuy dem bay dab sax ne ñu ne ñi comme moom fii ndooy lañ sant te waa Thiès lañu wante ñooñu aussi mosuñoo taxaw fii ne daral bi seen alal la ndax dañu jox cër ñi nga xam ne dañ ñoo koy occupé muy ñii di éleveurs yi donc doléance bi ñu posé lu war la lu law la ngeen ngay gis su tabaski jotté daral bi fi nga kay gis de dik sen seen mais day dem ba gannaaw stade day dugg ba ci kër yi parce que amuñu espace bi war li fi nekkoon gën ko yaatu centre commercial bi jël na wenn wall bi garage bi jël na benn wall bi donc li mo leen dese pour am turu daral lolou nak, doléance bo xamné né ñun day mun nangu nañu andax yow en tant que ministre muy le maire le préfet pour porter doléance bi yobuko même auprès du président de la république pour nous trouver une solution définitive si lii ndax état lu mu mënul rek daf ci dugal dugalul loxam en tout cas lu ñu mën a seede ñi fi né du ay nitu ay ay nitu jàmm lañu lépp loo xam ne état jël na en l'occurrence monsieur le préfet dina ko waxtan ak ñom ñu ànd seex ñom avec discipline lepp lo xamné aussi état jël na jox ko pour que ñom nous liggéey ici, nous jot nañ ko séddoo ko te kenn mësu pour fait. donc vraiment nous leen rendre hommage si cette discipline si cette action que nous monsieur le commissaire il y a fi qui ndax fu am ay commissaire a toujours mais commissaire si daral bi fi daral ñun avez bari choses, suñu avez lépp vous fait la fait dañuy ñaan nak yalla dalal la jàmm salam mission bi nga réussir que si jàmm salam au bénéfice nak des éleveurs et des populations.